waaw salaamaaleykum euh, maa ngi tudd Ousseynou Ly nekk coordonnateur parti PASTEF fii ci Médina bokk en même temps euh, cellule communication bu secrétariat national communication bu PASTEF mais également nekk membre ci cellule communication de la coalition Yewwi Askan Wi. Euh, nga xam ne mooy sa devoir citoyen mais gis-gis bi lenn la faible donc participation bi ñu nemmeekoogul pour l'instant. Uh-huh. ban nga ci am en waaw déjà di euh, sant sant yàlla bi mu ñu may ñu fekkewaat élection euh, di jaajëfal sénégalais yi ci euh, taxawaay bi nga xam ni am nañ ko envers suñu l'intercoalition wallu ak yeewi durant toute la campagne électorale ndax gis nañ fi ñu jaar yëpp ak fi ñu dem ñëpp ni ñu askanu Sénégal teeroo donc ñun lañ ci jaajëfal bu baax a baax léegi nag li ci des mooy dernière étape bi vote dafa nekk loo xamante ni ni ma koy waxee tout le temps élection du pour parti politique élection du pour acteur politique élection citoyens yi ñoom ñoo ko moom ndax diir ba diir ñoom la ñu may pour ñu mën a feeñal maanaam ndax lii nga xam ni loolu la ñuy doxal ci wàllu nguur ci wàllu assemblée wala ci wàllu ay collectivité territoriale ndax ànd nañ ci wala ànduñu ci maanaam koo xamante ni voté woon nga diggante bi nga gis ni yow amoo loo d'accordul wala am nga loo d'accord donc bu élection jotaatee opportunité boobu lañ la may yow mi nga xam ni yaa di citoyen pour nga dem feeñal ko ndax wa ànd nga ci wala àndoo ci donc élection pour citoyen la citoyen yi ñoo moom élection donc ñoom dañ leen di ñaax di leen soññ ñu bañ a xam ni acteur politique bi li mu am ci élection mooy bëgg naa am naa yéene ñëw gaaral askan wi li nga xam ne mooy gis-gisam ak yéeneem ci gox bi wala ci réew mi wala ci assemblée nationale citoyen bi nag moo am sañ-sañu tànn ndax loolu lañ ko may ci jour vote te am nañ yaakaar ni nit ñi ñu ngi génn ñu voté ji ndax am na yoo xamante ni peut-être am na gox yoo xamante ni mu ngi taw mais n'empêche euh, gëm nañ ni ci li nga xam ne gis nañ ko durant la campagne électorale ferveur bi nga xam ne askanu Sénégal wane nañ ko gëm nañ ni tey balaa 18h yi dinañ génn massivement voté ndax ñu ngi may xamal ni sànq ci suba fii melul woon nii mais daanaka mu ngi soppeeku ndax nit ñi ñoo ngi commencé ñëw voté ndax dimanche nag am na ñoo xam te ni xëy na balaa ñoo génn voté dinañ def seen liggéeyu kër ba pare dinañ toppatoo seen i añ donc laatu ñoo ñëw voté ci mais gëm nañ ni ñun askanu Sénégal dinañ génn voté ci massivement. ok tey ci processus électoral bi déroulement. Euh, seetlu nga ko ndax relevé woo ci ay contraintes. mais euh, yaakaar naa électoral liñ ci liñ ci yàgg ŋàññi lañ ciy ŋàññi c'est-à-dire bi ci mujj rek mooy ndax code électoral dafa ne 15 jours avant le scrutin le fichier électoral doit être disponible mais gis nañ ni ministère communiqué wu ci. wootewul wax ni fichier bi disponible na ba il a suñu mandataire à cinq jours du scrutin moo dem pour mën a récupérer fichier boobu donc ay rëkk-rëkk la yu ñu nemmeeku ci processus électoral mais loolu du ñu bett ci nguuru Macky Sall du ñu bett ci ki nga xam ni moom la dénk pour mu organiser élection yi ndax boo bu ñu seetloo taxawaayam ak li nga xam ne mooy la direction générale des élections taxawaay bi nga xam ni am nañ ko durant bi ñuy confectionner liste ak di déposer liste liste coalition yi taxawaay bi ñu am dañu feeñaloon ci njëlbeen que ni lépp lu ñu mën a def pour que kujjee gi rawatina euh, intercoalition wallu ak yeew yi lépp lu ñu mën a def pour que ñooñu du ñu am ndam wala du ñu am doole gi war danañ ko def donc ñun bettuñu waaye ñun nag fi ñuy delloo kàddu gi mooy askan wi seen jëmi bopp parce que ñun li ñu gëm mooy li ñuy wax ci kër yi di ko wax ci bureau yi di ko wax ci mbedd yi di ko wax ci foo mën a dugg ba ci jàkka yi ba ci grand place yi mooy sénégale yi dañoo wàcc nguuru Macky Sall donc nag lii nii def seen kéemtalaay kattan pour que euh, opposition bi wala kujje gi wala notamment yeewi askan wi ak wallu du ñu am li ñu war a am ci élection yi mais man bal bi dama koy delloo askan wi ndax ñoom la dernier mot leur revient donc ñoom laay ñaan ñu génn massivement dem voté ji parce que vote Serigne Cheikh euh, yàlla na yàlla yokk leeram dafa wax wax ju am solo nee na naaj wala taw ku mu tere doxi sa soxla dafa fekk la ngay doxi du farata te citoyen voté farata la ci moom donc li nga xam ne moom la ñuy jooytoog ci kër yéeg ci néeg yéeg ci bureau yéeg lii la ñu am opportunité pour xamal ni carrément nii lañ ko mën a fajee donc ñun dañuy delawaat lépp parce que processus bi gis nañ ko donc am na loo xam te ni duñ ci ñëwaat bi ci mujj mooy bi ma la wax li nga xam def nañ ko fichier bi waaw pour le moment ça se déroule bien ça se bien li ñu war rek mooy tamit xippi suñu ay bët di xool ndax <laughs> achat de conscience dañ ko fiy gis transfert d'électeur dañ ko fiy gis ak yu ni mel ak bu ñu ñëwee sentir ni carrément ndax 2017 ma fàttali defoon nañ ko Touba bi ñu demee ba sentir ni vote bi sens bi mu jël arrangé wu leen donc dañu ñëw jaxase carte gi manqué bulletin yi ba gis nañ ne Touba meloon donc nag cet fois si duñ ko nangu et je pense que ñaax nañ suñu ay représentant bureau de vote ñaax nañ suñu ay mandataire pour que anam boobu ñu jël ci seen responsabilité ba mu mat sëkk pour que sabotage gi nga xam moom la ñu bëgg def ci jour vote bi du am. jërëjëf merci beaucoup. ci wolof rek ko ci noo jàngatee vote bi nga xam ne jamono ji dañu jàpp ne tibin na lool. waaw maa ngi euh, am tuuti euh, jiixi jaaxa. te du sax jiixi jaaxa parce que vote bi dafa timide bi ma dugg see ci école bi gis naa ne nit ñi génnaguñu euh, may lancer appel rek population bi yëpp nañu génn voter parce que c'est un devoir citoyen te tey ku xam euh, élection législative yi ñu nekk li nga xam ne dafa am enjeu bu bu am solo euh, Yewwi nag dafa nekk appareil boo xam ne mu ngi affirmé wu te gis nañ ne mu ngi ci biir kër yi nit ñi nag bu ñu nelaw ba 10 heures wala 11 heures wala midi nañu génn voter je sais que nit ñi conscience bi nga xam ne am nañ ko fi mu nekk ñëpp dinañ génn voté incha allah. Mm. da nga confiante. ah oui bien sûr macha allah xam naa ne dama ànd ak caravane yeewu yëpp dama nekk ci en plein ci campagne bi dama investir wu bu baax ci ci ci campagne bi et fu ma munti dem fépp fu ma munti dem tant au plan national qu'au plan local nit ñi yeewu yi il ne parle que de yeewu yi donc euh, loolu rek doy na. xel bu dal pour euh, ñu ñu ñu wax ne euh, euh, tey ci ngoon incha allah bu ñu demee bay décompté yeewi dina am lu am solo incha allah. à part Arame rarement la ñu gis ay jigéen député fii ci Médina tey lan mooy sa yëg-yëg ginnaaw bañ la investir. sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax parce que ñun de on n'avait pas demandé laajuñu woon pour être investi lii nag dafa nekk loo xam ne dafa nekk fruit wu 36 ans de militantisme boo xam ne dañu joxe suñu bopp donc de soi boo xam ne population yi rek moom moo taxoon euh, mësuñu ci xaar politique bi ñun mësuñu ci xaar post parce que dañu am suñu métier di liggéey mësuñu ci xaar post mais lii tey bu ñëwee dañu ne ñun dañuy dem non pas parce que dañuy nekk député parce que dañu war a am salaire dañu war a am essence dañu mais dañu nekk député pour représenter population bi xam aussi ne député bi dafa am lu ko war mu am mission bu am solo te ñii ma entouré xam nañ ko damay wax fan yii yëpp ne du ma law parce que ce n'est pas le fait nekk député moom moo am solo mais def résultat boo demee nekk député loolu moo am solo en tant que femme nag mu ngi ñaan yàlla tey bu yàlla dogalee loolu yàlla na ñu dem ba la ñuy représenter population bi population bi gis ci seen bopp. madame kan Awa Diène laa tudd may quatrième sur la liste nationale de Yewwi Askan Wi.